voilà mi ngi noonu euh, trucs astuce si la ñuy daal di euh, jàll ni euh, Khadija ngay waxtaanee naka la ñuy def ba daal di taxalikoo ak li ma sonal man te xam naa ne sonal na Aïcha Diakhaté di karaas. teel ngeen ni semaine passée ak semaine bi yëpp si yéen laa nekk. waaw da ñuy tendance ci leel. waaw instant bi da ñuy tendance waaye amuñu benn problème man moom tey moom nangu naa man tey nangu naa man dama karaas la yàqu. <laughs> <laughs> ñoo la baan daak mu ngi noonu Khadija waaw ñu ko waxee rek ci njëlbéen bi on va parler des pellicules moom nag euh, wolof bi di ko gën xam ci crasse mhm. donc crasse nag euh, fu mu am fu nekk ko waral bu njëkk bi mooy benn champignon boo xam ne moom la ñuy wax malassezia moom nag euh, moom mooy euh, proliféré wu si bopp boobu de telle sorte que euh, engrenage boobu muy créer mooy def concentration wu cellules yi nekkoon ci bopp bi hmm. donc il est à rappeler que déjà si terme capillaire hmm. dafa am derme am épiderme donc derme ak épiderme ñoom tout le temps dañoo war di renouveler wu vingt-huit jours après mais bu fekkee ni malassezia boobu dafa ñëw incrusté wu ci biir épiderme boobu noonu boobu ñu war a def tous les 28 jours dafay daal di ñàkk renouvellement boobu du am moo tax cellules yi di dem di euh, wu loolu mooy créer li ñuy wax trace mooy pellicule uh-huh. donc cause yi bi ci njëkk am na génétique am na médical bu génétique bi mooy dérèglement hormonal soit euh, enceinte nga nekk en état de grossesse da koy def wala tamit euh, lu ci mel ne puberté xale yi nekk ci âge âge wu war a transhumé dem ci beneen âge am na aussi lu ci mel ne ménopose da koy def de traitements médicaux yi muy yenn garab yoo xam ne da koy utiliser inadapté à son fonctionnement cellulaire am na tamit stress wala fatigue lu ci mel ni anxiété da koy def xam naa loolu moo tax sax ñun ñi euh, jeunes yi mu war mu yàpp ñu loolu am na tamit ay causes externes lu ci mel ni pollution bi muy euh, dëkk bi tilim tilim gi ci am ak euh, lu mel ni alcool wala tabac donc dafay def euh, faral di def pellicule mhm. chaleur sèche-cheveux sèche bi ñuy def sèche-cheveux bi da nga koy jege trop sa euh, bopp bi de telle sorte que euh, chaleur boobu noonu dafay indi crasse ah waaw dafay indi pellicule changement climatique bi aussi daf koy def casque wala bonnet bi ngay sol lu yàgg ci bopp tamit dafay indi crasse te crasse yooyu muy indi yooyu ñoo gën a tëña parce que crasse yooyu dafay dem ba jur leneen ci biir euh, ma ñëw ci traitement naturel yi euh, parce que mën ngaa jël sa fee bigal sa fee nga bind <laughs> maa ngi capté am na problème <laughs> traitement naturel yi euh, aspirine nag dafay dindi crasse médicament boobu di aspirine aspirine aspirine waaw ma bàyyi la nga digérer <laughs> ko ni ñu koy defee mooy quantité bi ngay jël di raxas sa bopp quantité de shampoing boobu. Ah. déjà boo jëlee quantité boobu nga jël aspirine bi ñaari doomu aspirine nga dëbb ko boole ko ak quantité boobu ngay raxasee sa bopp quantité shampoing boobu mélange ko raxasee ko sa bopp dafay dindi euh, crasse bi beneen bi tamit mooy li mel ne huile de théière ci ba tey ci huile essentielle yi huile de théière moom it quelques gouttes jël rek image yi ah, Charles après duñ ko jël euh, wane ko. comme ça Aïcha Diakhaté xam lan mooy huile de paye mm-hmm. donc huile boobu quelques gouttes ngay jël rek yokk ko ci sa shampoing vinaigre de cidre de pomme aussi parce que am na suñu xam nee nañ vinaigre dafay dindi crasse mais du vinaigre yëpp vinaigre de cidre de pomme la spécialement fait pour dindi crasse. du nekk de cidre de pomme non du vinaigre <laughs> vinaigre de cidre de pomme la donc moom moo koy dindi ni ñu koy defee mooy da koy mélanger ak ndox mhm. vaporiser ko ci sa bopp bi de telle sorte que après absorption mhm. euh, quinze à trente minutes après ngay door mën a raxas ak shampoing bi ngay jëfandikoo li mel ni tamit euh, rince bouche muy bain de bouche bain de aussi dafay dindi crasse boo raxasee sa bopp ba pare ndox mi ngay lenkalikay sa bopp bi sotti si bain de parce que bain de bouche dafa am alcool salicylique donc moom dafay lutter contre euh, champignon boobu noonu ma waxoon ci début bi. Mm. huile de coco aussi euh, ngëneel yi mu am on en parle on en reparle. Mm-hmm. donc huile de coco aussi da nga koy def avant que ngay raxas sa bopp ak shampoing bi massé ko ci cuir chevelu bi yëpp noonu après dafay dindi crasse yi lu mel ne citron aussi. muy euh, citron jus bi ngay pressé rek boole ko ak ndox mi ngay raxasee sa bopp mu dindi crasse boobu noonu yëpp xorom aussi mu nekk ay astuces yoo xam ni on en voit tous les jours chez nous ci waañ bi et tout ça xorom le sel da koy jël rek nga saupoudrer ko ci sa bopp bi yëpp avant que ngay raxas sa bopp genre boo tooyalee bopp bi ba pare mhm. nga jël xorom bi def ko ci sa bopp bi ba mu xorom bi dugg ba incrusté wu ci biir poids euh, kii bi Euh, ci cuir chevelu bi mhm. nga maase ko ba mu après absorption ba mu leer na ni yow dajatoo dara lu mbiru xorom ngay mhm. bàyyi ko 15 minutes après door a raxas sa bopp donc dafay dindi crasse boobu noonu yëpp mhm. aloe vera aussi ay ngënal rek la am da ngay jël gel bi rek maasa ko ci sa bopp lu mel ni laaj laaj xeeñ na lool waaye ay ngëneel rek la am mhm. donc da ngay écraser laaj boobu noonu boo ko dëbbee ba mu nekk poudre nga frotter ko ci sa cuir chevelu après nga door a raxas sa bopp mhm. donc loolu yëpp ay ngëneel la mhm. ah onzième bi mooy onzième et dernier bi huile d'olive huile d'olive aussi euh, moom it ay ngëneel rek la am danga koy waaw da ngay maase cuir chevelu bi avant que ngay raxas sa bopp mais tamit crasse mën nañ bañ mu ñuy bañ di ñu dal buñ defee astuce nii yëpp ba crasse bi dañ mën nañ bañ di def tout pour que mu bañ a ñëwaat mm-hmm. pour champignon boobu bañ a ñëwaat ni koy defee mooy arrêter de maltraiter vos cheveux de grâce karaw kenn du ko maltraité lu ñor nga peñe lu ñorul nga peñe en plus am na ñoo xam ne bu ñuy peñe dañuy peñe tel de telle sorte que avec force la ñuy peñee te loolu yaa ngi agressé sa cuir chevelu bi donc il faut arrêter di raxas ndànk di ko peñe ndànk aussi mhm. deuxièmement bi mooy euh, boo raxasee ak ndox mu xaw a tàng mooy da ngay boole ndox mu tàng ak sedd ndox mu cedd mhm. boo paree lenkali ko ak ndox mu sedd buy ndax de l'eau ci ngay lenkalee boo raxasee sa bopp ba pare mhm. laver régulièrement seen peñe yi ak brosse yi brosse yi yi ñuy utiliser ku ko utiliser ba pare keneen utiliser ko nga jëfandiwaat ko kooku bu amee champignon bi wàll na la ko mm-hmm. donc dangay raxas avant que nga koy utiliser limiter aussi gel ak lak lu ci mel ni lak wala ngay tent sa bopp loolu noonu yëpp dafay indi euh, champignon boobu di Malassezia hmm. donc aussi espèce défrisage teinture loolu yëpp c'est à éviter hmm. ba pare retrouver une alimentation équilibrée parce hmm. que tamit li ngay lekk lu nekk dafay feeñ ci sa bopp d'accord ah, ah, ah fi nga jeexalee de xam naa ne kon léegi ñiy karaas dina bëri mooy gel yeex yooyu tellement que léegi baby hair dafa xew ñëpp a ngi ñëpp a ñëpp a ngi ñëpp ku jóg baby hair ñëpp a ngi gel donc c'est à éviter pour euh, daal di euh, taxalikoo ak karaas waaye man dama am lu ma moom metti Khadija ndekete yow ndekete vinaigre bi ñuy wax du vinaigre bi ñuy utiliser man rey sama bopp vinaigre bi laa jël comme ni nga ko waxee man noonu laa ko doon defee jël serviette bi mm-hmm. trempé ko si ci euh, euh, ndox bu tàng bi ak vinaigre bi euh, def ko masque ci sama bopp quelques minutes après ma daal di koy dindi mais ndekete mosul nekk vinaigre boobu kon man loolu moo tax sama karaas mosul dañ <laughs> bëri nga ci morom mais de cidre de pomme la d'accord vinaigre de cidre de pomme ko ci ndox mu xaw mu cedd bi bon mais am na ñoo xamante ni ñoo xamante ni dañ koy am naturellement ça vient comme ça mais am na ñoo xam ne peñe yi moom laa uh-huh. doon wax si cause yi am na génétique wala médicale mm-hmm. cause génétique mm-hmm. wala cause médicale muy mm-hmm. trouble hormonal yi lu mel ni ménopause wala anxiété wala fatigue tamit daf koy def champignon la champignon buy nekk sa biir bopp bi moom la ñuy wax maladie dafay weex mooy sa bopp bi fa sa déru bopp bi di weex noonu di di weex noonu rek oh. da nga kaa seetlu oh waru fekk waroo nga fekk ma baña a ma wan la sama yos daal si am na si boo xam dafa aigu ma da ngay okkatu rek tout le temps foo toll di ko gratte tellement que mm-hmm. nit ñi dañuy jàpp da nga am teeñ mm-hmm. ndekete yoo mais moom bu mooy bu aigu bi mm-hmm. cellule morte yi ñoom ñoo tegloo tegloo de telle sorte que faj faj bi sax dafay metti lu waaw c'est ça mais astuce bii nii onze remèdes yi ma leen jox nii euh, dina baax loolu boo leen ko di def dina dindi crasse bi ah am waaw ah, mais mais après da nga koy raxas ba mu set googu noonu mën nga cee jaxase ak lem mhm. après da koy raxas ba mu set xet bi xet bi du si du si du si des mhm. après da koy raxas ba mu set man moom li ma leer li ma leer ba leer mooy sama bopp sama waaw Khadija ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax <laughs> ñu bàyyi la nga daal <laughs> ñu bàyyi la nga daal di àggatoo rapidement yaa ngi tooñ bu baax d' accord donc euh, lii laa leen indi loon tey si trucs et astuces mm-hmm. encore une fois di remercier bi ma bokk leen plateau bi yëpp di leen joxaat dig daje jour mu indi ñu lu am solo ci wàllum trucs et astuces di ko jaajëfal di jaajëfal aussi téléspectateurs yi nga xamante ni depuis ce matin ñoo toogoon na di ñu seetaan ci seen émission matinale bi lee di euh, petit déj di jaajëfal bu baax Astou Mbar moom mooy présidente fans club euh, Walfadjri fële ca Mbour daf ñuy bàyyi xel di ñu suivre tout le temps ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci conseil yu mel mi ngi noonu di leen remercier Charles René Fall Ajaratu Penda Diallo Guèye sama nawle boobu madame Guèye ñu ngi di leen di jëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi di leen jox rendez-vous demain di leen ñaanal ngeen passer une très bonne journée à demain inchallah <laughs> Ibou Faye aussi ñu ngi koy euh, ñu ngi koy jaajëfal moom aujourd'hui c'est son anniversaire Ibou fay ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire na dund ba say may di na mu ngi fële ca Fass Mbao di ñu di ñu suivre <laughs> pot de fleur bi suba dina ñëw incha allah ndax ñu am jàmm ak salaam euh, à demain allah <laughs>